vous et nous yéen ak ñun waaye yéen ak ñun nee rubrique bi nga xamante ne mooy ça m'énerve waaw grand ci loo ne waaw maa ngi nii xale bu jigéen bi mais da nga waaw maa ngi ma naan waas nag yaa ma gën a xam yow lu énervé lan moo la métti ci dëkk bi xoolal lii benn ngi nii lamp yi tàkkul Pikine tali mag non loolu rek moo ñu énervé nii c'est pas normal. arène nationale bi ñu tabaxal fii ah. bëgg ñu taxal ñu suñu gendarmerie. defar ñu fa lu ñu wax yëpp ñu eggali ñu ko. pour am sécurité Pikine. surtout police bi soxla nañ ko fa trop trop trop. waaw li ñu énervé fii Pikine bëri na comme côté agression beeg yooyu noonu du tout xam nga. insécurité totale daal. la ñuy wax Pikine. su ma ci paree nee naa la ba tey maa ngi fi nga ah. mais man dama doon dox dajanteeg yow Baye Fall li nga def baaxee boo ko. nañ ñu dimbale ngir yàlla laaxal ñu poste de police si wet bi. kese mhm. loolu kese. loolu rek sa mu ngi baxee sama xol bi. Mhm. bandi yaa ngi fi. Mhm. génn katay guddi yaa su fi. suñu nakay génn. taxel da ngay woo taximaan taximaan bi ñëw su nekkulee lool da ngay li solo génn surtout fii station bii. gars yi lay kar la fi agresse la daa doy nangoy solikool ñemetuñu génn ñemetuñu dem fenn vous et nous la ñuy wax de ci rubrique bi nga xamante mooy ça m'énerve xale jigéen ñi dëgganaa di seen bopp yi fii di watu di def leen neex loolu énerve na ma saison yi dëkk bi kenn mënutul xàmmee góor ñi kenn mënu xàmmee jigéen ñi mhm. loolu daal métti nañu daal let's go ça m'énerve loolu la énervé en direct doom baay doom baay ci la bokk quoi doom baay ak famille quoi ak sa sa waaw loolu moom li ma métti ci la bokk waaw. mooy xeexante beeg. waay waay xeexante beeg liggéeyante beeg lu ne. Mhm. wur na yonent bi. te kenn avancé wul nag. parce que jàppalante wul. Mhm. waaw kenn avancé wul famille bi yëpp kenn avancé wul ñii ñii sol sagar ak ñii sol jees neen ñii yor trente mille rek cent franc ak deux cent. Mhm. ñëpp yem boo paree di moom may mille franc barki Serigne Bamba. ñun ñëpp a yem ci àdduna. Sénégal moom ñëpp xam na ni réewu teraanga léegi nag amatul ay réewu teraanga la yooyu dañ koy teg si yoon. Aïcha nee naa la su ma jugee fee damay daal di doxaat xuus xuus xuus waaye dama yem ci kenn koo xamante ne nee la su ma ko gisee mu toog damay jox sama yaay booy. di la laaj lan moo la énervé ci dëkk bi. bëri na parce que fi mu ne kenn ñemeñul ñaxtu kenn ñemeñul wax. parce que ku wax moom ñu teg la loxo. moo tax li ñu metti yëpp bëri na ñemeñuñ ko wax. waaye ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba. waaw di góor góorgóorlu nag di ñafe rek. maam booy nuyu nañ la. fay nañ la bu baax a baax. booy tey maa ngi la fekk fii ngay jaay ci sa cere tey maam booy tey gis nga lu la métti wala dund nga lu la métti wala am nga loo xamante ne lu la énervé. bëggoon naa kaa xam. maa ngi dund dugub lu métti ndax yoruma xaalis te damaa wérut. Mhm. moo ma métti. yoroo xaalis te dangaa wérut. waaw waaw. bëggoon ku faj daal ku la jàppale. ku ma jàppale ba ma wér. la jàppale ba nga wér. waaw waaw. moom moo gënal de. moo la gënal waaw ah, waaw bu ma yoree. Mhm. dara dutuma métti. li dafa mel ni fu mu ne nii ah. ñooñu ci kawam. soos bu soos bu ñorul bi la waaw tey bëggoon naa xam lan moo la énervé tey ci dëkk bi lu la métti. an ah, ci dëkk bi. Mhm. xanaa ñu doon ay jigéen rek léeg-léeg ñu dajeeg ñoo xam ne ni dañuy tooñ waaye dañuy muñ rek. Mhm. te xam ne liggéey bee ko waral. loolu kese la. mais apprenti nuyu naa la. oui fay naa la yaa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm waaw. bëggoon naa xam lan ngay gis ci réew mu métti la wala fii ngay liggéeyee lu la énervé. ah ñun moom li ñu énervé moom bëriwul waaw dëkk bi daal waaw yéeme na moo gis nga sàcc ñu fere ñu ñu ngi nii si marché pied bi di lang di daan suñu doole di ñaan nag xam nga ki nga xamante ne moom mooy président si jëmu boppam mu jàppale ndaw yi ñun sàcc ñu fene ñu dañuy daan suñu doole. ñaan alkaati yi tamit ñu dawal ñu yërmande alkaati yi ñu dawal ñu yërmande waaw xam ni ñun fukk fukk yeeg cent yi moom moo ñuy may mburu gune yi fukk fukk yeeg cent cent yi. ñoo koy indi. lii mooy li nga xamante ne moom leen jële moom lañ leen jëlale woon uh, fii nga xamante ne mooy diwaanu Pikine suba mun nañoo dem feneen ginnaaw suba ñu demaat feneen ci rubrique bi nga xamante ne mooy Sa Minerve damay delloo antenne bi ki nga xamante ne mooy baxaaw di nuyu waa plateau bi naan leen gros bisous à vous musu koro naa la bëggee naa la Aïda Diouf ci xool